gën a bañ man affaire laa gën a bañ ay boole kii nga sëy bi bu la neexatul da may fase. Eh. non non non non you hard work me eh, eh. non work me work me. Ah, léegi baal ma léegi. man yi dund ma ko de. kumbis moo ma tooñ nag. non. man bëgguma koy nettali. waa secret faw de kaas meen ñaari dóor laa la fi dóor. aajil kaas yi aajil serviette bi nga yéex. des tamit day saf de. waaw yow mais bu ma la yow yow bu ma la dooree da nga koy wax ci biti lee kañ laa la ñamali ngay ko. yow nga yor sa xaalis jël sama frère fat ci kër gi ba pare mayoo ko jàmm di ko su suba ak ngoon bàyyi ma bàyyi ma ma wax bàyyi ma ma wax dóor yi pour lan la nii la ñuy kii su ma déggaloon beneen soxna lay am ne pas yow. Ousmane yow bañoo ku la yëpp ndax boo bañoon ku la yëpp lii nga nekk ci biir kër gi doo ko def. su ma la fekk nga indi sa caaya di ndagar wale jàkkaarloo xale yi yow lii nga fi nekke di kon ba bañoo ku la yëpp loolu du yebeel sax du tax sax ñu yeb ma loolu xam nga animation la rek pour xumbal kër gi kër gi am tuuti animation rek dindi stress yi rek loolu la rek loolu la rek man kenn yebu ma ci de man buñ ma yebee yow la ñu yeb te yow kenn waru laa yeb ne na am fit léegi looy defati doo ma tàggu du ma yëg ci statut laa koy gisee loolu day naq day maa dootuma defati dara lu la metti dinaa la sëy sëy bu neex jaamu la jaam bu neex sa barke doon sa góor góoru daal góor ci léegi noonu lañ koy bàyyi rek mu jàpp sa mbàjjan di doo sutaatu mën na bëgg ñu koy def noonu mais yow dangaa tuuti pour wax si damaa bëgg a tëj sa làmmiñ noppi lii nga man maa ngi koy wax sama papa ba nga wax ko ko su ma déggee ne waxu ko sa papa man ak yow la sa jëkkër ji nga def si fond def ko fobere kaay ak am kër bàyyi yow nag ñoom xëy na sa kër gi dalaa joom fi nga ne di wàññi jëkkër jëkkër doo sëyee ba mu leer na am nga kër nga yóbbu ko tribunal fex fexe ba nangu kër ga mooy sa kër gi waaye kaay nag ma yëgal la man kenn du ma dàq man du ma ko ñuy dàq boo sutiyee ba muy yàgg te gisoo i ngay seet si gil sama rob si <laughs> gil boo ci fee ba boo yàgg a tëj soo sigil sama bul a kaay fii li ngay wuta a ci man bul dem kaay fii li ngay wuta ngi ci man bul dem kaay fii